émotion bi nga xam ne moom ngay ressentir mais di ko forcer rek Yacine loolu baaxul de. ndax <laughs> boo koy forcer déjà da ngay sax ridicule à la fin am na ñoo xamante ne bu lu ñor ñu ree lu ñoru ñu ree yooyu aussi war nañ ko éviter bu ñu nekkee réunion yooyu aussi nekk na li nga xamante ne war nañ ko mën a bàyyi ndaxte dafay daf ñuy dégrader dafay yàq suñu professionnalisme aussi avant le sourire plaqué nañ ko nañ ko bàyyi bu baax a baax mais aussi ñëw ci ah di sourire rek. souri rek taw a bàyyi. est-ce que ñoom tamit duñu leen wax à l'accueil surtout à l'accueil on demande d'être très souriant Ahmed Aïdara. <laughs> nuyu naa la. maa ngi lay fay bu maa ngi nii sant. ah ma revue yi ma gis tay de allah. revue yi. waaw. man moom man nag dama aayatul quoi dama xaw jëm mag. dangaa xaw jëm moo tax expérience bi di gën a yokk léegi léegi léegi mantulaay quoi yaa ngi jëm mag ba tey jëmagoo ba jëmagu mag moo tax affaire yi di gën a dama jëm dama ko xam nañu jëmoo mag jëmoo waaw waaw yéenekaay yi donc on va te retrouver tout à l'heure dans la dans dans la revue euh, Rokhaya ñu di la jaajëfal bu baax a baax ci <laughs> li nga xamante ni fàttali bi ñu fàttali tax na tamit kenn ku ci nekk tay di bu fekkoon sax da nga ko doon def ndax affinité wala wala yàgg bi nga yàgg ci entreprise bi tax na nga am mhm. benn laisser aller tu vas te reprendre en main et c'est très important ma di la jaajëfal bu baax a baax effectivement di kontaan ci yow bu baax a baax am na yeneen i point yoo xam ne bu beneen yoon dañ ko indi ndaxte li ñuy wax rek lu duuf ci nag bi xaju ci cin dañ koy pose rek ñu poursuivre suñu revue de presse ak suñu alaaji Ahmed Aïdara effectivement alors on se retrouve tout de suite dans la revue de, Ahmed Aïdara na nga def Sénégal salut Dakar c'est Ipupa je vous donne rendez-vous ce samedi er février au King Fat Plaza la soirée Fojeka avec tout mon va faire la fête ensemble mais ensemble du Cap la Merveille Tokos dem ci lu gën a fës ci bopp yéene kaay seen naa fi li nga xamante ni moo di tribune nga fas yéene ko tàmbale. waaw nuyu naa ñëpp Paasan maa ngi lay nuyu de. bu baax Alaaji ak Yaas maa ngi lay ziar. ak Yaas Yaas Yaas Yaas. et puis sama sama sama ñaari nitu démb laa toogal. macha allah démb. démb yàgg na lool xaw waaye euh, tribune tamit euh, ñor na lool. acca ñor na xaw ma kay tribune yéen kaay lañu koy dooree ak nag lu jëm ci wàllum Erdogan bi nga xam ne moom mooy président bu Turquie xam nga ne nag mu ngi woon fii nag euh, ci suñu réew waaye moom nag fixé na ay objectifs de la ak fayda la moom daal li mu bëgg daal mooy cinq cent et quelques milliards maanaam. un milliard de dollars. moom la bëgg xam nga ñoom nag moom Turquie moom fi mu nekk nii moom macha allah jël nañ Sénégal waaye Sénégal jël na leen. ginnaaw centre Abdou Diouf bi yeggale tamit euh, aéroport international Blaise Diagne defar euh, gare bu gros. Euh, porteurs yi ah, ñoom daal xam naa ni daal ñu nekk nii. ak stade bi di ah, waaj a ñëw te président Macky Sall nee na aussi gerte gi tamit bëgg naa ngeen dugg ci bu baax a baax a baax a baax a baax. mais est ce que loolu noonu gerte bi tamit bu ñu jëlee euh, Turquie def leen fépp tamit est cent mille tonnes. Ah. barki Dembo Ndiaye yaa ngi nekkoon ci sept mille te chinois yi tamit ñu ngi taxaw indi fi seen xaalis boo indee Turquie mbaa du jeex. bëgg a Brésil ak Arabie bay ci année bi yëpp. neuf mois koy toog di ko semé. borom baykat bi après dina ñëw alaaji moom a gën a maîtriser mbay. le soleil yéen kaay ñëw ak ñun si juróom-ñaari accord yoo xam ne nag signé nañu ko euh, moom diggante Sénégal nag ak Turquie waxtaanee leen tam wàllub euh, Libye euh, Sud Quotidien moom ñëw ak nag ci Dakar ak Ankara waaw ñu <laughs> ma defal la ko moo de fast track. ah déedéet fast track ma tey. non baax na déedéet may yi nee nañu. Mhm. solution militaire bi baaxul. Mhm. solution politique bi daal toog autour d'une table waxtaanee ko. première ak deuxième guerre mondiale yëpp ci table la mujjee. loolu daal moo gën ñoom ñaar daal en tout cas loolu lañ fi wax démb. Sud Quotidien ñëw ak ñun nag ci mode fast track bi macha allah ñoom ñaar xam naa bëggante ko xonq. waaw xam naa métis nag ñu ci mucc. métis dina ci mucc de. <laughs> métis mooy juróom-ñaari yi mooy juróom-ñaari métis ci juddu. ak yi jiitu woon last yéen kaay nañu gis nga alerte am na Sonko ak Atepa Goudiaby ci lu jëm ci wàllum tosiyal euh, yi mm-hmm. malgré loolu yëpp Macky Sall moom jébbal na feer bi Erdogan jox na ko te weddi nañ fi génne fi ay ay ay ay ay ay ay contrat ne Ousmane Sonko contrat bi mu génnee dafa obsolète daa màgget patati mm-hmm. patata mm-hmm. wiiri wiiri jaari ndaari feer ba joxe nañu ko Njóoba Sekk nag mooy xale bu jigéen bi nga xam ne dañu ko rey ca sibs laas wax na ci lu doy waar ak Le Soleil yéene kaay nee nañu ndaw si kon ndekete bi muy faatu dafa ëmboon subhanallah waaw lu tolloog juróom benni weer. juróom benni weer maanaam six mois. waaw. ba tey xamaguñu kuñ ku ko rey ba tey. waaw dina ñëw ci kanam. dina ñëw ci kanam rëdd bi dégg nga. dégg nga yaa ngi mm. ci Sénégal ak nag lu jëm ci wàllum épidémie bi nga xam ne kon ma ngay toj Chine di coronavirus moom xam nga ne jàngoro jooju moom fi nekk nii waaye Sénégal nag mi ngi jël ay matukaayam yu doy waar a doy waar a doy waar euh, réew mi quotidien ñëw ak ñun ci wàllum cybercriminalité ne nag gang bi nga xam ne waa Nigéria ñoom ñoo ko moomoon ca duwaanu Yëmbal nag jàppal ne gang boobee moom daal dinay euh, toj daanu na. les jàpp nañ leen waaw. super les éco yéene kaay ñëw ñun ci lu jëm ci wàllum assassinat wu kii di njóobalaay. Mm-hmm. gis nga ko ki nga xam ne nee nañ faram la woon. Hmm. kooku ñu ngi koy wër. boobu léegi dafa daw ñaari portable mi doxatul. ah kii mu nekkal nag moom it nee nañ ko ci jàpp nañ ko ndaw si nag nee nañ dafa ëmb. dana waar de kii. Hmm? kii copain bi nekkal nii. Ah. ok doy na waar doy na kay nañu kii Marie Sagna nag wax na. Hmm. li mu xamle nag mooy fi ñu ko denc ci kaso bi ñu ko denc. Hmm. fañ ko dugal présumé terroriste yi ñoom ñoo fa nekk. Hmm. te moom lan lañ ko toppee. flagrant délit loxo ci poos dem dugal ko fële. deux mois yi mu fa am yëpp li mu jot ci ay visite weesul juróom-ñaari nit. matul sa fukki nit. duñu est-ce que du duñ koy tere gis nit ñi ngir mu bañ am influence. waaye ne gis nga madame li jaaxal nit ñi mooy. dañ ko jàppandoo ak ay nit. ci benn bërëb. kon xam nga même délit la. même délit waaw lu tax léegi ñu libéré ñee moom ñu ñu ñu denc ko. c'est ndax mooy gii. ndax mooy. gii muy est-ce que du parce que mooy l'influenceur comme ni mu koy. l'influenceur ah. a kii ñu ànd defandoo. waaw ñu jàppale. xanaa bu dee xanaa sa kay ñu ni Babacar Diop mi nekk chef nekk itam professeur. Marius nag. Guy Marius nag benn adversaire politique bu nekk bi Sénégal muy nguuru Sénégal. <laughs> am beneen adversaire bu ngande. bu tudd France bu tudd France. <laughs> moom de France ah. France dégage la. donc gii moom son war nañ ko gën a mën dooleel. non doy na waar waaw moo tax moom gis nga ko. Mhm. nee na dara soppee ku nekk ay sondeel rek. Mhm. kuy sacrifié moom ba yegg ci sondeel moom. wallaahi sonde bougie moom lenn du moom. moom day taal boppam toog. di xaar. ba jeex ba jeex. Sénégalais yëpp nag noonu. ça montre que il est ah, il est bi mooy. soo leen yaakaaree ne fii ngeen ma denc mooy tax ma noppi. Mhm. juum ngeen. Mhm. juum ngeen juum ngeen juum ngeen juum ngeen critique yéen kaay nañu société civile bi sax mujj nañ cee dugg parce que étudiants yi ci boppam nekk UCAD université Cheikh bu Dakar. Mhm. ñoom moom nee nañu gi violé wul. sàccul alalu askan wi détournement des deniers publics. trafiqué wul faux billet. nii faux médicament. Mhm. loolu moo tax ñoom ñu xëy benn jour rek ne dañ ci xeex pour Guy Marius Sagna ñu génne ko waaw mmh. étudiants yi moom duggee dana neex. loolu ah. dëgg su ko bi di ñëwal ñun ci benn taalibe boo xam ne dañ ko rey 11 ans la 11 ans mais dañuy remarquer aussi que depuis de 2016 yi ñoo ngi dee rek. c'est terrible. c'est ah. terrible. 17 cas 17. 17 tués. doy na waar. Fallou Diop doy na waar doy na waar doy na waar en tout cas nee nañ daal. ki ko rey sax nekkul sëriñam de. beneen taalibe bu am 15 ans nekk fa bu sëñ bi génnee moom moo leen di. ñooy tari di leen surveiller. Oh, ñu dóor ko dóor ko door ko libération yéene kaay nag nee na nag xoolal ñun ñëpp coupable lañ. gars yi dañ nekk fii di wax rek kenn deful dara. Fallou Diop la tudd. Oh. ba pare li ci gën a doy waar mooy jamono ji nga xam ne moom mi ngi sukuraat. ki mhm. ko dóor. mu mhm. ngi dugg ci biir néeg bi moom di di añ. Eh. préparé pour añ ak yooyu. kooku xale la xamul lan mooy. xamul kuy agonisé xamul xamul kuy xamul koy sukuraat. ak léegi gis nga set taalibe dee nañu. ñii wàllum fitna ñii wàllum sàggante. 61 cas yoo xam ni dañ leen a dóor. ñii ñu fitnaal leen ñii sax ñu seen kaw. Oh. waaw. yegg seen kaw. waaw maanaam violé leen dama dama dama loolu dama ko doon dégg ci. Ah, ah. mooy viol mooy mooy viol ah. comme que yéen ay tubaab yi ñuy dégg yéen ak yaa seen fekk. ces expressions wolof la puisque xamoo leen leen léegi ñu leen koy leeral. ñoo la baal waaw yegg ci. Eh, kilifa da koy war maa. waaw <laughs> nangu. nangu ko. de dama koy jàngal rek. ay tubaab la ñu. ay tubaab yi ñuul la ñu. Mm-hmm. ay tubaab yi ñuul ngeen. Yaas prend mal en patience garaawul. non ay tubaab yi ñuul la ñu. xam nga Yaas moom. <laughs> Yaas doomu lébu bu mel. lébu la caw leen tënkee. toog fii ci télé bi ñuy def revue des titres. Mm. ma ne ko yaas tey dama bëgg a góorgóorlu rek jël journaux yi. di wax benn par benn. waaw.